bismillahirrahmanirrahim rahman rahim suñ ñett lañu bi ci ñeek moy raxasa yoxo ñett yoon ñaarel bi moy galaxndiku ñettel bi moy saraxndiku te moy dugal ndox mi bu baax ci say bakkan ci sak noy ñentel bi firu te moy genn ndox mom ci sak noy yi bi moy massa say nop te moy tooyal say waram ray leen ci biir ak biti bi moy yeesal te moy yi tooyal say waaraami di ak sànnikaay yi juróom-ñaareel bi mooy delloo si massa bopp yi ba mu yegsiwaat fa nga tàmbalee woon juróom-ñetteel bi mooy toftale farata yi te mooy jiital kanam teg ci tànk yi sallallahu alayhi wa sallam